dañuy des ak l'honorable Doudou Wade ci émission bi mu doon amal fële ci RFM di grand jury di àddu ci diggante le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye son excellence ak le premier ministre Ousmane Sonko moom Doudou Wade nee na kii di le chef de parti du PASTEF bëgg wax rek Ousmane Sonko waaye waxul la premier ministre mu ne le chef de parti du PASTEF n'est pas habilité à s'exprimer sur notre politique internationale amul dayo amul gëdd amul daraja amul Euh, euh, abilité ngir nag di addu ci lu ñeel wàllum politique li Sénégal séq ak yeneen réew yi suñu politique étrangère moom kii di Doudou Wade nee na loolu yi benn responsabilité man daal kenn rek moo amee boobu responsabilité te moom képp la ko yoon may muy le chef de l'État son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye fay neen itam maa ngi fàttali ne ci wàllum politique étrangère ak wàllum politique militaire dañu loolu président bi képp moom moo am dayo moo am gëdd moo am daraja ngir di ci addo ak di ci def ak di ci dindi nee na xanaa benn exception muy bu guerre waree am bu benn état bu Sénégal waree doon guerre beneen état mar d'Italie président bi dina bind assemblée nationale laaj leen seen avis ci lu ni mel waaye bu dul loolu lépp lu jëm ci wàllum politique étrangère militaire loolu domaine la boo xamante ni c'est exclusivement réservé au président de la République nee nag détails yu safaan yooyu moom kenn euh, léeg doo dem ba xàmmee ku nekk ak rôlam te itam duo bii ñu wax Jomaay Sonko la loolu yi moom nañu def nànk te euh, kenn ku nekk nga xam luy si rôle nga nekk ca Sonko ba ñu dugg ci rôlu président ndax am na détails yoo xamante ni président képp moo ko amee tey itam bu deman ba àgg ci itam le premier ministre Ousmane Sonko daal Eh, ñàkk a déggal daal di def loo xamante ni defuwul di jël dogal yoo xamante ni itam président bi moo ko moo ko amee boobaa itam président Bassirou ma fay du def lu dul rek jël ab décret wàcce ko